ñoom ñaar jéggi na su yor wàcc jël na Tapha Tine na Tapha a ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang daan na jaajëfalaat bu baax yéen suñu internet di am contentement di jàndoog yéen chaque jour mbégte bi nag mooy leen indil li gën a fës ci xibaaru làmb ku ci nekk dama lay fekk fa nga nekk rek ne la jàpp sama loxo daal leen nuyu gën gi nuyu ah Assane Waala soo ma fayee daal di ñëw jukkil leen li gën a fës maa ngi lay nuyu Assane Ndeye Mbacke fay naa la di nuyu internetu Leewtoo TV namoon naa leen gëjoon naa leen a gis di leen euh, bégee lu bëri bëri bëri amaat mbégte jàkkaarloo ak yéen pour indi leen di gën a fës vendredi 12 juin 2021 laata loolu nag revue bi huile j'adore moo leen koy may chaque jour ak gambu complet boobu mu àndala ah. dara ñu indil pâte j'adore vermicelle j'adore spaghetti j'adore macaroni j'adore ñii di waaye mu daañu tegal ataay j'adore waaye kenn du Assane Waalo au Kayar mhm. au mën na ci ndox yi sell na set na jaar nañ ko ci jumtukaay yu mucc ayet au Kayar daal mooy ndox bu ñuy aar mm. ndoxu sportif yi ndoxu moo ci mën fuuf <laughs> vendredi 18 juin 2021 dañu ne saraax ci xeexaru làmb ak journal suñu làmb comme xëyee nag ci xëtam bu njëkk mooy Biram Ñing Biram Ñing nag di agent ki nga xamante ne nii mooy Modou Xarañ Lo roi ba ca passé la muy xam ne nag journal bi mooy bëgg na Modou Lo bëre ba bàyyi bëri yu bàyyi couronne bi dëgg la Ndeye Mbacke loolu mooy méwétu euh, Biram Ñing mi nga xam ne nii moom mooy agent Modou Lo bi ñu ko laajee avenir u Modou Lo làmb ji nee na moom li mu bëgg moom mooy Modou bëre bëre bëree bëree ba bàyyi yóbbaale couronne roi des arènes loo xam ne nii benn mbër mosu ko def waaye bi mu daanee kii di ab Abdou Bakhoum mi nga xam ne nii moom mooy manager Ama Baldé daf ko tontu nee na ñoom ñaar ñi ngi war dajee daje le cinq décembre bi di ñëw waaye moom li muy ñaan li muy xaar moom mooy Ama Baldé corriger Modou Lo ba pare soo koy daanee pour loolu ànd ci nag Assane Waalo xale ba ca Pikine di Ama Baldé sëll bu ndaw ba nag mu nga France depuis mardi bii nii. dëgg la depuis mardi la dem France war na fa am nag ñaari weer euh, li mu fay wuti mooy day préparer combat am contre Modou Lo le 25 décembre waaye également day dem fekki foofu jabaram ndax soxnaam mi ngi France donc mo euh, Ama Baldé depuis mardi passé mi ngi France pour deux mois de préparation. te noonu nag combat ba ñu régulariser di dox ci diggante ñàkk jariñu ak kéwél gi pour le 7 août. Mbaye Babacar Assane Waala sax laay wax. Xaarim mhm. Xaarim Samb nag dajale na combat 10 combat bi daal di koy régulariser fekk ca CNG. dëgg la Ndeye Mbacke Xaarim Samb moom moo tëgg grand combat bi war a dox ci diggante ñaxi jariñu ak ki wala prévoir ko le 7 août. démb nag dafa def euh, dem CNG régulariser fa 10 combat yoo xam ne nii ci journée boobu lay am. si dix combats yooyu mën na ci cité euh, kii di capitaine dina war a dajek Sanderep am na Albouri Zal Ndengeleer am na Randiop Bébé Balla am na Fils de Bada Jonia am na caatu ngéwal Mbartin euh, deux am na également Dame Junior ak euh, Mbeng Mboor combat yi yëpp war na ko prévoir le 7 août bi nga xam ne ni boobu la ñax jariñoo ak kéwal di di jëflante combat ba nar a am suba ak jàmm allah ci arène nationale nag Jal Ba coach mi nga xam ne mooy écurie sap mooy xëy di àddu candidat bu mat bu dangereux teg ci. dëgg la Zalba moom mooy coach écurie Jap moom nag dafa def benn analyse ci combat bi war a dox ci diggante Franc ak euh, Tyson 2 suba. ci arène nationale moom nag li wax nee Franc am na client bu sérieux ndax Tyson 2 nekkul mbër moo xam ne nii dañ koy présenté ci làmb ji mbër mu mën a door la mbër moo xam ne nii am na vécu ci làmb ndax yàgg na bëre yàgg na ci mbappat bi am na daal euh, bagage technique bu ko mën a permettre mu daane Franc nee na daal Franc li am ci combat bi moom mooy que ne moom moo gën a nekk ndaw Tyson 2 beneen mauvaise nouvelle sax laay wax ginnaaw bu dernier entraînement sax laa moo ko Siteu dafa def ay gaañu gaañu ba tax ñu reporté combat bu nar a am ci diggante Garga ak Mama Lamine. dëgg la Ndeye Mbacke Mama démb la njëkk reporté face à face bi ndax démb la war a def face à face foofu ci Sicap mbaaw ñu reporté ko ñu naan lan moo tax mu reporté ko mais finalement xam nañ ko li waral report boobu nag mooy que ne Mama Lamine dafa blessé da doon entraîné ak Siteu mercredi bi passé. foofu la ko Siteu gaañaale xam naa diiran entraînement bi ndax tey jii ci vendredi la war a dem hôpital war fa wut benn certificat médical boo xam ne nii dina ko présenter promoteur bi pour ñu reporter combat boobu prochainement pour dire que comme suba ci euh, samedi bi Mama Lamine ak Garga de combat boobu ci report la jëm. ci report la jëm maanaam 5 boxe 4 boxe lay mujjee nekk ca nag. ginnaaw ba armée meree ba photo daal di génn ci presse bi daal di dugg baaraam nga xam mooy promoteur ba di prince ba combat ba yàqu diggante fëgal la kañ ko mu dee jox nag mooy ambulance ka ko décroché mooy Pape Dieng Mbaye dëgg la Ndeye Mbacke Papa Dieng ñu gën ko xam ci milieu presse mu nekk Sud FM léegi nag nekk na promoteur jël benn structure tuddee structure am bi mu tuddee ko Dieng euh, Jéeri ngoone production mm-hmm. noonu la tuddee structure am bi moom nag euh, démb la dikk euh, taxawal combat bi war a dox ci diggante armée ak ambulance doon nag revanche la ndax armée ak ambulance jot nañ daje le 8 janvier 2017 te boobu ambulance moo ko daane woon day bàkkee. kon revanche lay nekk te noonu nag Sa Diafou jàppale ma. Sanjaafu Sanjaafu seen tur yi kenn xamul la Sanjaafu Sa Thiès Ocass dimanche bii nag ñaari mbër yi Assane Wala ñu ngay tëkkonte ku ci nekk la nga naral sa morom nekkul jàmm. dëgg la loolu dimanche bi lay am nday Mbacke ci Kaolack stade euh, Lamine Gueye. foofu la combat bi war a am diggante Sandiafou ak Sa Thiès bu Ocass le combat bi nag les associations des jeunes bijoutiers bu Thiès bu Kaolack plutôt ñoom ñoo ko tëgg loolu kon war a nekk combat bu neex ci diggante Sandiafou ak euh, Sa Thiès Ocass combat bu neex ci foofu ci euh, Kaolack dimanche bi di ñëw incha allah. ca noonu nag journal les arènes lañ jëm les arènes ba mu xëyee la mu xëyee di samp mooy gagné la couronne après son premier combat royal mm-hmm. ndax Ama Baldé dina émété Yékini dëgg la B52 ak Balla Gaye wala Eumeu Sène. dëgg la Ndeye Mbacke les arènes moom mooy quotidien bu bees boo xam ne ni arène euh, lutte rek lay lay lay kii comme lay traité comme suñu làmb donc làmb ji mi ngi dox puisque quotidien yi ñi ngi ñi ngi gën a bëri. ñu leen ñaanal mu gën a yokk te seen aventure bi mu gën a ñu leen ci ñaanal ñu liñ ci yóotu ñu am ko comme ni nga ko waxee nag euh, arène dafa dikk samp ab laaj ndax nee na Ama bi nga xam ne nii moom moo war a jàkkaarloo ak Modou Lo le 25 décembre bi passé dina invité Yékini Balla Gaye ak Bombardier ak Eumeu Sène ñii seen premier combat bi ñu doon bëree ci roi des arènes dañ ko jël ndax euh, Bombardier dafa daane Tyson le 25 décembre 2002 jël couronne roi des arènes c'était la première fois muy disputer un combat royal Yékini également euh, daje woon ak ak Bombardier le 28 mars 2004 daane ko euh, Balla Gaye 2 daane euh, daje ak Yékini le 22 avril 2012 daane ko Eumeu Sène ak Bombardier le 28 juillet 2018 donc ñi ñëpp seen premier combat royal dañ ko gagné léegi nag journal euh, Les Arènes ne est-ce que Ama Baldé dina imiter ñii nii ñu cité. est-ce que dina imiter ba tax na Modou Lo Tapha Tine Gris Bordeaux ba ñu ma ñu mm-hmm. ñoom it defoon nañ ko mais dañu échec ndax Modou Lo amoon na chance jël ko ci contre Bombardier mais ko daane de même que Gris Bordeaux amoon na chance contre Yékini Yékini daf ko daane également. Tapha Tine même temps ci Balla Gaye aussi euh, te Balla Gaye daane ko. ba léegi nag Ambroise Sarr lañ jëm moom nga xam ne mooy mooy tàggat équipe nationale de la lutte euh, Assane la muy xam ne journal bi nag mooy kii di Thiaka Faye décision bi mu jël na dee bàyyi daf dina waxtaan moom def ci kénta la kattan fa mu delloo ci ginnaaw dëgg la Ndeye Mbacke Thiaka Faye ginnaaw bi ñu ko miinee ci lutte simple da yëngatu xam naa temps yi nag seen équipe bi résultat yi doxul trop léegi nag mu génnoon euh, ne day arrêté carrière internationale am léegi nag Ambroise Sarr mi nga xam ne ni moom mooy coach équipe nationale bu lutte avec frappe lutte euh, simple lutte traditionnelle bi ñu ko waxee loolu moom nee na yëg na ko waaye li mu bëgg moom mooy dina euh, def kéemta lay kàttanam ba wax Thiaga fay mu continuer carrière am ndax Thiaga Faye équipe nationale bi daf ko soxla. ko soxla te noonu nag la ñuy jeexalee xibaaru nag mooy record lutte. Franc posant le point à la presse lam def nag ñaaw la ko loolu reporter yi maire ba photo daal di dut baaraam mbëru parcelle mbooloo boobu. dégg la Ndeye Mbacke mercredi bi passé bi mu def open presse foofu ci parcelle unité set Franc ba mu defee ay activité ba pare dafa dem sans mu wax ak euh, reporter yi. loolu nag record jël jox reporter yi kàddu jox na ci Bour Guéweul jox na ci Djily jox na ci Ndeye Mbacke yow mii nga toog euh, Bour Guéweul li mu wax nee ne Franc dafa war a euh, présenter ay excuse am reporter yi ndax ñoom dañu fa demoon pour euh, ak recueillir réaction mais malheureusement amun ko Djily moom li wax nee ne venant de Franc geste boobu Euh, moom bettu leen ndax Franc bokk na ci mbër yoo xam ne nii moom moo gën a naxadee décroché entretien mais li Ndeye Mbacke wax moom dama la koy bàyyi nga wax lan la ci Ndeye wax li Ndeye Mbacke wax nag ñëpp xam nañ ko Franc joxuñu cër vraiment nañ ko wax te dee que bu ñu joxoon cër du ñu déplacé wu ñëw ba foofu mu def li muy def daal di génn dem yoonam li mu def noonu Balla Gaye 2 defu ko Bombardier kazalika defu ko mm-hmm. Modou defu ko te ñun ñoo ko ëpp niveau ci làmb ñoom bu ñu tollee fi tey ñun ñoo tax ñun ñooy dem jëli mbër yi ñun ñooy tax mbër yi siiw te mbër yi bu ñu ñëwee may asanoalo duñu jox cër doxalal. dëgg la sote nga rek ordinateur mi nga xam ne ni gala bi 14 gala gala la def. en 4 mois saison passée euh, journal Les Arènes ne kon euh, ordinateur mi ngi baissé régime ndax moom da ko xamoon muy def ay gala yu bëree bëree bëri donc bu demee ba def 14 gala ci saison rek c'est parce que ordinateur mi mi ngi dellu ginnaaw. mu mel ni ordinateur ay mbiram doxatul dafa daje gaa yi ko ëpp doole wala moom moo xaw a nooyal. waaw peut-être nag euh, doole ji ci la ak peut-être possibilité bi à chaque fois moom da doon dem ay gala yu bëri chaque week-end mu dem gala mm. te xam naa peut-être jotom mayutu ko muy dem à fois ci gala yi ci week-end yi peut-être loolu la. muy noonu nag dama koy jaajëfal bu baax moom Assane Waalo loolu moo nekkoon li gën a fës si xibaaru làmb looy tàggatoo di la jaajëfal Ndeye Mbacke di jaajëfal également Mbaye Babacar mi nga xam ne nii tey dafa ay yite moo ko téye ba ñëwul ma remplacé ko di leen bëggee bu baax a baax a baax di leen jox dig daje ci yeneen jotaay incha allah. di leen béggee te di leen jox di daje ëllëg ci Leewtoo TV waaye laata loolu nag damay sant di gërëm sama caméraman bi mañ pour ah Mansour Fall damay bég ci yow bu baax a baax dem administration Mato Aïda Diouf Diouf ñoo ko bàyyi dama leen nuyu bu baax a baax ah. kébee sama lonko bi kontaan naa ci yow sama infographie Bamba mon papa ay love bi bëgg naa la lool lool lool ah Ousmane Pël bi maa ngi leen nuyu bu baax Adja Nafi Ndiaye kontaan naa ci yow Fama Mistera damay bekk ci ñoom ah damay tëjee sama chauffeur bi rek moom moom maa ne 100 pour cent assurance sécurité pure et dure ah. jox leen dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na tafaatin dóor na tafaatin a ngi dóor suuf attention Sa Thiès ak ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw